الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وصفيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni jurul kenn kenn juru ko te du nawle ci kenn ñuy seede ni amul kenn kun war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko moom muy borom bu sell bi moom muy borom bi nga xamante ne moo duppee ci turam yi sell yi assalaamu muy jàmm ñuy seede ni sangu sunu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la xaritam la tànneefam la ci mbindeef yi yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam ba bu yàlla suñu borom subhanahu wa taala di donn suufam si ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla yàlla suñu borom di ñu ko dénk ci ay bërëb yu bari ci alquranul karim mu bokk ci aaya bi muy wax ni e yéen ñi gëm na ngeen ma ragal te su ngeen di wax na ngeen wax wax ju rafet wax ju jub wax juy defar ndax moo tax mu ni yuslix lakum amalakum mooy tax yàlla suñu borom yëwanal suñu mbir wa yaxfir lakum dunubakum moo tax tamit yàlla suñu borom bi ñu jéggal suñu bakkaar mu ni wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima képp ko topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku de mooy ki texe texe gu màgg mooy ëllëg ñu dugal ñu ba aljana yàlla ñu ci yàlla boole mbokk yi ci yàlla suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci sumuliyatu salaamu fi l'islam muy l'universalité de la paix en islam jàmm ji nga xamante ni islam léppam li ko peeg jàmm la loolu mooy suñu xutbay tey insha allahu taala mbokk yi diine islam de mooy diine gi borom bi subhanahu wa taala reconnaître wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala min wa huwa fi l axirati min alxaasirin képp ku jàpp benn diine jàpp ko muy ab diine bu dul islam yàlla suñu bon ne du ma la nangul te ëllëgee yowmal qiyaamati ci ñi perte ngay bokk yàlla nañ ci yàlla musal yàlla wax ni inna diina inda allahi islam diine moom buñ koy wax islam moo tax ñuy wax islam nag ci boppam turu islam ñu ngi ko duppee ñu ngi ci génnee dérivé moo bu ñuy wax assalaamu muy jàmm sa bàkku islam wala manton bi ñu tudd bi ñu bu ñu solal islam ci boppam mooy jàmm yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ñuy xamal ni yow mbindeef bi ci boppam ngir nga am jàmm ngir nga am jàmm sa bopp neen la am yoo xam ne na nga koy suuxat ngir nga am jàmm ginnaaw bi nga nekk ab jullit islam mooy diine gi nga xamante ni it ngir boo ko jëfee ci biir famille bi léeg-léeg ñi ko wër muy sa famille ci jàmm ngeen di nekk islam it mooy diine ji nga xamante ni su ngeen ci tënkoo société bi leen wër lépp ci jàmm lay nekk islam mooy diine ji nga xamante ni léppam ak léppam jàmm la al islaamu diin salaam islam bi diine jàmm la nuyoo bi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala mu ñu ko tànnal ngir ñu koy weccante suñu biir jàmm lay und mooy asalaamu aleykum nga ni ko waaleykum salaam yàlla nga am jàmm moom it mun la yàlla nga am jàmm jàmm yàlla gi gën a màgg muy julli ginnaaw bi nga ci déyeeg suñu borom subhanahu wa taala bay génn ci julli gi nee na baat bi nga ciy génnee mooy asalaamaaleykum yaminan wa shimalan ndey joor ak càmmoñ baatu jàmm baatu jàmm ci boppam téere bii di alquranul karim yàlla suñu borom wax ni inna anzalnaahu fi laylati alqadri wa ma adraka ma laylatu alqadri laylatu alqadri xayrun min alfi shahri tanazzalu almalaikatu warruuxu fiiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'i alfajri guddi gi alquranul karim wàcc muy guddi gi laylatul qadri guddi googu guddi jàmm la ko borom subhanahu wa taala duppee mbokk yi keroog bi ñu dajooyee suñu kanamu borom subhanahu wa taala biir aljanna mu ñuy fay yàlla ci yàlla ba yàlla suñu borom bu ñu fay fekk baat bi muy nuyoo ak ñun mooy assalaamu aleykum taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam wa aadda lahum ajran karima mbokk yi ginnaaw bi ñu dëkkee ci biir aljana ba pare it malaaka yi nga xamante ni soldaaru borom bi subhanahu wa taala di nekk suñuy service bunt yi ñuy jaar yépp di dox ci ñuy service yàlla suñu borom nee na wal malaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab salaamun aleykum bima sabartum fa niama uqba daar nee na lan ñuy wax mooy la ñu malaaka yi wax mooy yéen ñi nga xamante ni yéen a sàlloo woon muñ ca kaw suuf muñ di def ndigalu yàlla yi muñit di bàyyi la yàlla tere ndax lépp muñ la nee na tey moo leen jural kër gi nga xamante ni mooy gën gi dëkk muy biir aljanna yàlla ci yàlla dugal nee na malaaka yi loolu lay wax ak ñoom wal jannatu nafsaha aljanna ci boppam yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi ko tudde daaru salaam lahum daaru salaami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kaanu yaamaluun mbokk yi borom bi subhanahu wa taala ci boppam turam yu selli daf ci jël assalaamu muy jàmm muy duppee ko boppam kon jàmm mbokk yi lu ñuy suuxat la te jàmm rek mooy li sakkan aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu taxawaayu ñaareel mooy assalaamu maa salaam jàmm ji nga xamante ni moo war a dox ngir ñu am jàmm ñun suñu diggante suñu borom ana nan la ñuy def ba am jàmm suñu diggante ak suñu borom awulu majaali min majaalaati salaam ngir nga am jàmm sa diggante ak sa borom condition bi lii la mooy nga def li yàlla digle bàyyi la muy tere loolu boo ko defee rek am jàmm sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm yàlla mu ni ulaayika lahumul amnu wa hum muhtadun ñi nga xamante ne dañoo ne dañoo gëm yàlla te duñ ko tooñ tooñ ko mooy lan di ko bokkaale kenn nee na ñun dañooy ñi am jàmm sama diggante ak ñoom jàmm rek moo ci moo ciy sax te ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy ñi jub ñooy ñi mën a teg ci yoonu jub te ñoom ñooy ñi am jàmm ngir nag ñaari mbir ci bokk ci ci ay bàkkaar bokkaale mu tooñ la mais ñaari bàkkaar yi yàlla suñu borom santaane nee na sama jàmm bu ko toggoowee nee na man maa koy déclaré guerre yàlla ñu yàlla musal ci ci ku yàlla déclaré guerre inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla bu la déclaré déclaré guerre yàlla mu ni walillahi junudu samawati wal ard moom mooy borom soldaaru lépp lu ne ci kaw asamaan suuf yàlla bu la déclaré guerre mbokk yi maanaam lépp lu la wër lu dul sa jëmm yow rek yow maanaam cible nga ci yaay seen yaay cible bi lépp lu la wër ci kasamaan ak suuf lu la génn yow rek yow yaay cible bi yàlla moo la déclaré guerre inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba ci say cër cible lay nekk ci yow ndax ëllëg bu yàlla ne al yawma naxtimu ala afwahihim bis bee ëllëg ku nar a lay yàlla ne sa gémmiñ gi lay kaste wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun cër yi di wax bu cër yi waxee ba noppi la nga doon def lépp ci kaw suuf ci ay façade yàlla soo ko tekki na sa gémmiñ bàyyi ko muy wax gémmiñ gi di wax ak cër yi wa qaalu li juludihim lima shahidtum alayna lu tax ngeen di wax ñoom ñuy tontu antaqana allahu allazi antaqa kulla shay yàlla mi la leen waxloo ci kaw suuf tey moo la moo la tënk waxloo ñun kon yow say cër ci boppam dañuy nekk siibul yow bu fekkee ne yàlla da laa déclaré guerre kan la yàlla déclaré guerre ki nga xamante ni yàlla nee na sama nitu yàlla koo xamante ni waliyullah la bis boo ko tooñee yàlla danaan ko puusal man la amal affaire yal na yàlla yal na yàlla musal ci loolu loolu dafay sabab li nga xamante ni mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala déclaré guerre boo ñëwee ci xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu moo wax ni qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla qaala man aada li waliyan faqad barazani bil harb képp koo xamante ni tooñ na sama waliyu koo xamante ni moom ay mbiram yëpp jaamu yàlla la mu ni kooku noonu de man mii nga déclaré guerre man borom subhanahu wa taala yàlla nu yàlla musal ci loolu yàlla suñu borom di wax ni yaa ayuha alladina amanu taqu llah wa daru ma baqiya min arriba in kuntum muminin ñaareel baa ngi noonu képp koo xamante ni li ngay fàggandiku muy li ngay dundee riba la yàlla nee na man nga déclaré guerre lekk ko fi riba yi ëllëg yowm alqiyama yoon saa sallam mu ngi misaal nee na ñiy lekk riba ëllëg yowm alqiyamati seen biir yi dafay rëy ba bay lang ci suuf mujjee tóoj seen tànk yi ba seen cër yi nekk ci kaw biir bi nekk ci suuf ngir lekk gi na lekk riba ci kaw suuf yal nañu ci yàlla musal mbokk yi kon ngir nga am jàmm sa diggante ak sa borom li ngay def mooy da ngay def ndigalu borom subhanahu wa taala te bàyyi ay tereem lii jur jàmm mooy wa salaamu nafsi la yataxaqaqu illa bi ta bi illa bi bi tadaxuliti amma yakru xayaatul insaan mooy lépp loo xamante ni yow doomu aadama bi jikko ju baaxul la ci yow moo xam nga nekk kuy wax lu dul dëgg wala rambaaj wala iñaan jikko yooyu nga xam te ni yépp dafay tilimal sag ruux nee na jikko yooyu bu fekkente ne dindi nga ko ci yow xeex nga ak moom ba nekkul ci yow yow yaay ki am jàmm ndax lépp luy génnati sa gémmiñ rek ak yiw lay nekk te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi jullit daal mooy ki nga xamante ni jullit ni mucc nañ ci sa ayug làmmiñ maanaam doo ci wax kenn lu ñaaw doo ci wax kenn loo xamante ni safaan la waaye sa loxo tamit doo ci def kenn loo xamante ni lu koy jural safaan la lu koy jural lu ñaaw la kon loolu noonu mooy tax ñu mën laa duppee ab jullit kafful aza di teggil lor ci li nga xamante ni say dëkkandoo la wala ñu la wër ñu jële ci abdullah ibnu amr radiallahu anhuma ani nabi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmuhaajiru man haajara ma naha allahu anhu jullit daal mooy ki nga xamante ni jullit ni mucc nañ ci sa làmmiñ mucc nañ tamit ci sa ay loxo ki nga xamante ne mooy ki gàddaay nag mooy képp ku gàddaay li yàlla tere kooku mooy ki nga xamante ni mooy ki gàddaay wa salaamatu jàmm ba tey ma gayril muslimina ci ñi nga xamante mu dafa dox suñu diggante ak ñoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy ñëw madina fekk na fa ay yahud fekk na fa ay nasaraan waaye la ñu signé mooy ab pacte boo xamante ni moom la ñuy moom la ñuy nekk ngir seen nekkin mën a rafet pacte bi mooy nekkoon lan mooy mooy ni képp ku jóge fële ñëw fekk bëgg dindi jàmm jëne suñu biir ñun ñëpp ñooy booloo xeex contre kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kay jàmm rek loolu dox mbokk jàmm mooy li sakkan te bala ngaa xamante ni jàmm neex nga ñàkk ko bala ngaa xam ne jàmm neex nga ñàkk ko yal na yàlla defal jàmm ci suñu Sénégal lépp lu fiy wax yoo xamante ni wax ju safaan la léeg-léeg nga dégg wax ju safaan soo xamante ni ka ka wax mooy ka jëmul fenn yi ñu wax nii lépp boo ko doon xool neew fa kooku noonu ay waxam moom du jar nga dóor say doom waaye nag ñu def li suñu mag ñi daan wax nit ki moom bu fekkente ni dafa wax wax ju jàddu wala mu mel melokaan bu jàddu nee na bul xeex ak moom bul xulo ak moom na nga ko ñaan yàlla mu teg ko ci yoonu jub bu ko yàlla teg ko ci yoonu jub ñëpp nekk ci jàmm ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة